يوحنا ومن صلى فيها ست ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة واحدة وقل يا أيها الكافرون سبعا وقل هو الله أحد سبعا كتب الله له من كل آية يمر عليها حسنة مستجابة وله من الأجر كمن تصدق بألف دينار من قدي juróom ñaareel bi képp ku ci julli juróom benn rakka rakka bu ci nekk nga jàng ci faatiha benn yoon waaye nga jàng ci xul ya ayyuhal kaafiruun juróom ñaari yoon su juróom ñaari yeeg nga teg ci xul wala ahad juróom ñaari yoon soo ko defee mu ne yàlla dina la bindal ci bépp aaya boo romb yàlla defala ci tiyaabo ak itamit nangu ñaan te dinga am ci tiyaaboogu yool comme ku mel ni danga saraxe junney diinaar te ya doo ñaan yàlla benn aajo lu dul yàlla fajal na la aajo boobu nga ko ñaan di nga am itamit ci tiyaabo bi adadi matalaan alayhi shamsu tiyaabo ak yool bu tollook li jant bi tiimu lim ti mu bëri na ñax yeeg xar yeeg béy yeeg xobu garab yeeg yépp seen sakkanaay lépp lu jant bi di mu ni mu sakkane yow dañ la defal tiyaaba boo xamante ni toll na noonu walahu min al ajri bi kulli ayatin qasran fil na mu ne teyit yi ñu wax nga jàng soo ko defee aaya bu ci nekk dañ la ci sukkandiku bindal la benn pale pale mooy taaxam kow mu rafet moo xam ne dañ ciy def la ci war a aju yépp ci wàllu rafetal dañ la koy defal kon naafila guddi jurom ñaarel bi li la ñu fàttali ko mooy da ngay julli jurom ben rakka rakka bu ci nek fatiha ben yon qul ya ayyuhal kaafiruuna jurom ñaar yon qul huwallahu ahad jurom ñaar yon assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh